faaxa bonni na azahru tur tur ga ka annahoo daanaka naka moom zikru ga mooy soo tur aljamilu aji rafet xam nga turam mu rafet moo waral nuru tur tur mu dem tur tur nuru li ko turam mu rafet ak ba tey maqluub la zahra fay na asufu suba ga ka annahoo daanaka moom xujjatu ko mooy sa lay wa asaatixatu aji jolli xam nga lay mu leer moo waral nuru leeruk suba waaye mu jël leeruk suba di ko nuru leeg leeruk layam wowule taqal la dara ngoona alfaris ga war ba sayfan jeesi ka ànnaxoo daanaka naka moom jeesi jooju xas yi ma tuxoo mooy dogoom nga yow man nisaali ci bisub xeex ba wàccante naasala nisaalan waaye mooy bisub xeex ba rek xam nga dañuy gawar bi dafa ràngoo jeesi joo xam ne dafa mën a dog ni nga xam ne moom la dogoom gi mën a doge nga xam ne ak dogoom kay la waroon a niróolee jeesi ji mu far jël jeesi ja niróole koog dogug waa ji at tamrin alxaamis kawwin na nga formé tashbihan maqluban min kulli tarafayni ci képp ci yaari wàll minul atraafi ci wàll yi mbaa cat yi al aatiyat yi aji dikk maxa wadhi kulli tarafin ànd ak teg bépp wàll maxa ma ànd ak la nga xam ne yunaasibuhu dana yelloog moom baat yim lay bëgg a jox ne mas na caa formé tashbih maqlub mushabahu mu dikk mushabahu bii dikk nga jaawale ko nag la war a nekk mushabahu nga soppi ko mushabahu bii ci misaal boo dee xool baat yi ne sawtuhu kàddoom nga mën naa ànd ak xasfu raadi muy fàqu ak dënn dënn gu fàq lay cosaan nag mooy nga muróole kàddoom ak dënn gu fàq soo jëlee nag dënn gu fàq di ko muróole kàddoo mu daal nekk tashbih maqlub ba tey axlaaquhu ay jikkoom mën nañ ko muróole azhaaru rabia tóortóori loolu soo jëlee nag azhaaru rabian di ko muróoleeg axlaaquhu ay jikkoom mu daal nekk maqlubu nga seete ko noonu nag baat yi mooy xasfu raadi fàquk dënnu nuuru jabiinihi leeruk ab jëxam suhaahu shamsi ceeñarul jant xadabuhu meram moom waaja as saaiqatu muy fi ak mënu maanaam dunduk asamaan sawtuhu kàddoom nga lamool barxi nalxatik nalxat chanruhu kawaram sawaadu leyli lëndëmu guddi axlaaquhu ay jikkoom ibtisaamuhu ak muñam azhaaru rabihi tóortóori lolli nga xool at tamrin asadis xëy na danga ko mën a xamal sa bopp nga xoolaat ak tamrin ak saabian moom itam noonu nga jàll si nag ci ak tamrin ak taamin jaa adikk na fii kutubil adabi ci téere adab an aba tammaamin nag aba tammaam xiinama qaala ca waxtu mu waxee fii maddihi ahmada ci tagg ahmad ibnil mootasim kay dooy mootasim ne iqdaamu hamrin ñemek xamar fi samahati xaatimin ci tabuk xaatim fi xilmi ahnafa ci lawetuk ahnaf fi zakaayi iyaasin ci ñawuk iyaas doon tagg ahmad ne ahmad dafa ñemee ne xamrub nu ma aji karib ku siilo woon ci njàmbaar mu ne daa tabee ne xaatim moom it ku siiw la ci tabe mu ne daal lawete ne ahnaf ñawe ne iyaas bu mu waxee loolu xaala wax na baadu xusaadihi leen na ci way añaaneem amaama mamduhi ci kanam ka muy tagg ne ko ma sitta dolliwoo xalaa an shabbahta ci ba nga miroolee al amira buur bi bi man ci ña nga xam ne hum ñoom duunahu nekk nañ ci yéesam daa wax loolu ñenn ci ñi koy añaani moom woykat boobu ne ko yow daal da ngaa fekk ñoo xam ne ñoo yées kilifa gii ngay jël kilifa gi di ko muróoleeg ñoom xanaa kay da ngaa war a jël kilifa gi muróole koog ña ko féete ko waaye ñu ngi ko muróoleel ñoo ko yées faqaala daal di wax abu tammaamin ne laa tunkiroo bu leen weddi dar bi samak dóor mbaa samak sadd la xoo ñeel ko man ka nga xam ne doona xoo nekk na ci ak yéesam masalan muy am misaal charoonal mu di ab dàng ngaa kon maanaam mu di ab siiwaa kon rek fi nadaa ci ak tab wal baasi aku njàmbaar wal baasi nag mooy nekk ci way wi fallahu yàlla xadd daraba dóor na mbaa sadd na al aqal la la gën a tuuti li nóor yii ñeel leeram nga masalan muy misaal minal mishkaati ci faneetal boo xam ne fëttut maanaam palanteer bu fëttut wan ni braasi akub làmp aboo tamaam ne leen ni ma def fekk ñoo xam ne sama waa ji moo leen féete kaw ma ko nuralee ñoom ndax xam naa ni moo gën a tabe ñi ma wax moo gën a jàmbaar ñi ma wax waaye nag sunu borom ci boppam kat def na ko ci alquran sunu borom ci boppam def na ko ci alquran ndax dane masalu nóor yi ka mishkaatin fiha misbaax al misbaaxu fi zujaaja leeram nga moom yàlla moom la nuroo léeg leerug làmp boo teg ci fenêtre boo xam ne jàllut nga xam ne leer gi day takku ci digg bu néew a néew leer ga am doole lool xam nga ne leerug yàlla gam def mushabahu di ko muróoleeg leerug làmp boobee leerug yàlla ga ëpp doole nee na kon li ma def suñu boroom def na ko fa maama ana raddi lan mooy maxnaam delloo ga allësi gi nga xam ne saaqaxoo jiital na ko aboo tammaamin fil baytay ni ci yaari bayt ya assaabi xay nii aji jiitu waxal fistitaaxatika ndax nekk na ci sa kàttan an tudaafixa nga défendre xan abi tammaam yi walis abi tammaam bi xujjatin ci aw lay uxraa waneen baxda an tandura ci gannaaw ba nga xoolee fil bayt ca bayt wa jamihihi léppam wa ma nawu tashbihi lan mooy xeetu tashbih ba allësi ba nga xam ne yorom day dana gërëm loo haula in nuqaada yi lay critiqueur an nuqaad jamhu naaqid la an naaqid mooy ko am xam-xamu adab bu gisee kenn taalif nag mu wéy mbaa wesar mu gëstu ko wax lam ci xam ne lii kat nangam lii kat nangam lii kat nangam mu ne la li nga xam ne moom la aboo tamaam tontoo ñaari bay yooyu loo defee ne moom la ci jublu ak itam ndax mën ngaa défendre aboo tamaam ci indi yeneen lay woo xam ne day wuuteeg wee mu wax gannaaw ba nga xoolee nam waxi ca bayit wa ak it ban façon tashbih nga defee ne gaa yi koy critiquer ban tashbihu la gaa yi koy critiquer gën a bëgg nga xam ne su ko waxoon daal la ñuy gën a jàpp ne wax na lu rafet lu yéeme haati tashbihaatin maqlubatan fi wasfi jariin miqdaamin ci melal aji ñeme miqdaamin ku di ab jiituwaa kon jari ak miqdaam ñoo bokk tuma fi wasfi safinatin topp ci melal ak gaal tuma fi wasfi kalaamin bariixin topp nag ci melal wax ju am balaaxa dafa bëgg nga melal ku jàmbaare lool te andi ca ay tashbihaat yoo xam ne dañu nekk yu ñu jëlër bi nga del defaat ko ci melal gaal del defaat ko ci melal wax ju yéeme yéeme wax ju am balaaxa nga jàll si ci at tamrin alxaashir walaw lax tiqaarul usdi budul koo nag xeeb ngay ndeya shabbahtuhum ma nuróole leen ñoom ñi may tagg bihaa ca gaynde ya walakinaha waaye ñoom gaynde ya maa doo detu ñu ñu wàññiwaale lañu fil bahaim yi ci biir bahaim yi xeeb gu ma xeeb gaynde yi moo tax nu nga maa nuróole sama gaa yi may tagg ak ñoom ndax gaynde lu mu jàmbaare jàmbaare xam naa ne bahima la ci bahima yi takalam waxal xalaamaa ci li nga xam ne fil bayti nekk na ci bayt wi ak saabiq yi aji jiitu min durubil xusni ci xeeti taar albayaani yi bi ko jug bayaan waxal tara ak ndax da nga gis ne anal madha naka tagg wa yekkoon dana nekk abulaxa di gën a dem dayoo law xaal doonte waxoon na ne shabahtuha bihim wa maata yekkoonu ak lan lay nekk at tashbihu nuróole ba idan boobee xool bay bii te wax lu mu ëmb ci xeetu rafet ci wàllu bayaan ak it ndax da nga gis ne lee mu ne shabahtuhum biha su ko soppi woon shabahtuha bihim ndax defe nga ne kon boobu lay ëpp dayo boobu lay gën a rafet boobu lay gën a dem ci dayo ba am déet ak su boobaa tashbihu ba lu muy doon بلاغة التشبيه بلاغة التشبيه وبعض ما أكلن لي خمنه وترى نتلف لكم منه جموم عن العربي جلج عربية والمهدسين أك نمجني المهدس ليس رانا المحدث في اللغة المتأخر والمراد به هنا من جاء بعد عهد الهرب الذين يحتج بكلامهم في اللغة عربي mooy ñi nga xam ne ñoom daañu mën a laye ci seeni wax ba ne lii wër na ci làngu arab mbaa lii wëru ca ñooñu mooy al arab ñu ñëw ci seen gannaaw nag ñoom la ñu wax al muhdathoon di bëgg wax nag balaa xatu tashbih li nga xam ne moom la amee solo ak lañ ca nettalee ci arab yi dëgg-dëgg ak ñu ñëw ci seeni gannaaw tan si dana sosu بلاغة التشبيه بلاغة التشبيه من أنه جنكمام ينتقل ناتخو بك أغيو من الشيء بايكو جدر نفسه جمي بطن إلا شيء جم جدر طريف لأجيس يشبهه رولدن كنرو أو صورة ولا أو ملو بارهة ودي أجاو baari xatin bu martiroo dana ko misaal wa kulla ma kaana saa yu nekkee haadal intiqaalu gile doxu baidan di aji sori qalilal xutuurati te aji néew ak toq bil baali ci xel aw mumtasijan wala muy aji jaxasoo bi qalilin ci aji néew aw kathirin ba aji bari minal xiyaali ci jeeñeer kaana kon nekk ak tashbiihu nuróole ba arwaxa di gën a tiitle ci ab taar li naf si ñeel bakkan ba wa addaxa te gën a woote ilaa ijabiha jëm ci ak nawam wax te saa siha akuk rëng-rëngee moom bakkan ba ak tashbihu nduróole day lu ñu fonk ci balaaxa gis nga sax moom ni mu ko teel a indee ci téeréem bi li ko tax am solo ci balaaxa nag nee na mooy day fekk benn mbir moo xam ne xëy na xamoon nga ko wala benn melo boo xam ne xamoon nga ko mu nurale ko ak leneen nurale boo xam ne laata mu koy def day mel ne jàpp woon ne sax lu mën a am la waaye bu ko nuróolee dana neex ci yow yëngal la yëngal goo xam ne rek dana la jaaxal mbaa boog boo seetloo nam nuróolee lee ak lee mbaa melowee ak melowee ca dëgg-dëgg lu mu jeeñeer la rek sax de ca dëgg-dëgg nekkul lu am dëgg-dëgg mbaa boog jaxase na ca ak jeeñeer moo xam daa néew moo xam daa bari waaye su daaneelee daal dana rafet fi yow neex ci yow ndax technique ba nga xam ne moo ca nekk faaw sa bakkan naw ko faaw sa bakkan jaayu rëng-rëngi ca te nag bu fekkoon ne dafa nuróole nuróole boo xam ne moom loola amu ca du la jaaxal moom lay bëgg a wax bu yemoon ci rek nuróole boo xam ne amul technique amul dara dara du la jaaxal moom lay bëgg a misaal fa ida qulta boo waxee ne fulaanun diw yushbihu dana nuru fulaanun diw fi tuuli ci ab guddaay aw wala inna al arda naka suuf si tushbihu dana nuru al kurata bal fi shakli ci forma aw wala inna al juzura naka iliya wala nga ne duniya al baritaniyata tey ko jóg britannique tushbihu danañu nuru bilaadal yaabaani yooyu Japon lam yakun du nekk li haadihi tashbihaati ñeel yi la nuróole asarum jeexit lil balaaxati ñeel balaaxa li buhuuril mushaabahati ngir feeñu nuróonte ga wa xadam ixtiyaajil xusuuri ak ñàkk aajowoo yër xaliha ca moom ila baraaxatin jëm ci ak raw boo jaxdin akub coono adabi yëm bi ko jug adab wali xulum wiha ak ngir ak wéetum lu mel xayaali ci ak jeeñeer tax boo ne woon diw daa nuru diw ab guddaay mbaa nga ne suuf si day daa mel ne bal ci kaw forme mooy ci ni ñu mel mbaa nga ne île britannique yi dañoo niranteeg réew yi Japon loolu niróole la waaye daa fës lool leer lool nga xam ne ki xam adab ak ki xamul adab ak ki jàng balaaxa ak ki jàng balaaxa ñooyemoo képp ci muy am niróole bu leer nañ nañ di niróole kese kese boo xam ne dara raxu ko ci liñ koy jeeñeer mbaa dara loo xam ne day sori xalaatu xel lépp rek moom xel da ko la jàpp ci saasa lu mel noonu nag bu dee nuróole itam amuñ ci soxla ci wàllu balaaxa ba tax mu ne wa haasa darba wuli xeet min ak tasbihi ci nuróole ga yokk sabu def na jublu bihi ci moom albayaanu leer ga wal idaahu ak leeral ga wa taqribu shay ak jegeel dara ilal afhaami jëm ci xel ya te wa akthar ma li ëpp ci li nga xam ne yustaamal def na ko jëfandikoo fil xuloomi mooy ci xam-xami science yi fil xuloomi nekk na ci xeeti xam-xam yi wal funooy ak xeeti aar yi loolu mel ni moom nga xam ne amul benn xoromal amul benn technique ñi bëgg jàngale rek xam-xam mbaa ñu bëgg a jàngale rek aar ñoo koy jëfandikoo ndax ñoom dañu bëgg rek dañuy waxal lañ koy wax dugg ci boppam kon nag na baat ya gën a leere sori ak jéeñeer gën a jege xel ba xel mën koo jàpp rek loolaa ciy gën daa wuuteeg nag balaaxa balaaxa moom balaa am solo rek amee technique boo tax ñu koy yéem technique bi nag mën naa dellu ci nañ ko waxee dafa sori woon la xel di gaaw a jàpp mbaa dafa xaw a laal ci ak jéeñeer loo xam ne dañ koy jéeñeer rek waaye ci dëgg-dëgg amut walakin nag waaye yow ba xusuka daan la jàpp rawxatu tashbihi tiidleeg taaru nuróole ga xiinama tasmax mu ci waxtoo da nga dégg xawlal maarri waxi almaarri yasifu muy melal najmun ab biddiw ne yusrimu dana gaawal allamha gendiku ga fiix miraarin ci ak xong kama tusrimu ni kiy gaawale fi lamhi ci gendiku ga muqlatul xadbaani nagbatu aji mer fa inna tashbiha lamahaati najmi naka nuróole melxati biddiw wa taalluqihi akuk melxateem maha miraari dawihi ànd ak xongub leeram nga bisruxati lamxatil xadbaani ci gaawub genn kook aji mer minat tashbihaat mi ngi bokk ci nuróole an naadirati aji néew allati ya nga xam ne laa tanqaadu bu ñu womatu illaa li adibin dara ñeel aji xam adab boo seetloo almaxare ni waxe nuróole biddiw bi bu ne tàyyi tàyyi bu gaaw a gaaw ànd ak xaw a xong boole ca mu nuróole kook waaju mer bu jekki-jekki ni xull bët yi dal di gaaw delloowaat mbari bët yi ba noppi nag bët yi xong ndax mer ga ma mer xam nga lu mel noonu jéeñeer da cee nekk soroo na itam xalaatu xel ba nga xamee ne ki xam adab rek boo ko mënee jéeñeere nii indee ko nii waxee ko nii ba nga xamee ne ku ko dégg rek daal cay yéemu wa min dalika bokk na ci loole xawlu shaahiri waxi aji way ja ne wa ka an na nujuruma daanaka biddiw ya bay na du jaaxaa ci diggante ay lëndamam sunna nun ay sunna la laax yooyu feeñ na bay na xun na ci seen diggante ibtidaahun ak topp bidaa fa inna jamaala hada tashbihi naka taaru gilig nuróole jaa dikk na min shuhuri ki bàyyi ko ci sëg yëg bi baraaxati shaahiri ci rawuk aji way ja wa xidxihi akuk ñawam fi xaq jil mushaabahati ci fas nuróonte ga bay na xaalatayni diggante yaari mbir maakaanu waxam nekkutoon yaxturu di toq bilbaali ci xel tashaabuhuma seenuk nuróonte ñoom ñaar waxuma ñoom ñaar xaalatu nujumi mooy mbirum biddiw ya fi ruqati leyli ci pàkku guddi ga mooy ci lëndëmu guddi ga bi xaali sunani ci mbirum sunna ya ad diiniyati ko jub diine as saxiixati aji wér mutafarriqatan mbir muñ aji tasaaroo baynal bidaa ci diggante bidaaya al baatilati aji yàqu ya di ak neen wali hada tashbihi ñeel na gileg nuróole rawxatun taar uxra beneen jaa ba dikk na min ànd shaahira bàyyi koo ci naka aj way ji taxa yàlla jeeñar na ne ànd sunal naka suna ya madi atan aj leeral lañu lammaa xatunte melxatikat lañu wa àndal bidaxa ak naka bidaaya madlimatan aj lëndam la xaatilatun te aj lëndam la bu ne biddiw de na mu feeñ ci biir lëndëm ya daa mel ne ay sunna yu feeñ ci diggante ay bidaa nuróole boobu li ko tax a rafet mooy daa nuróole yaari mbir yoo xam ne bu ko waxatoon dañu defe ne mënu ñu am genn nuróo xel du xalaat mukk ne mën nañoo am ak nuróo ndax ay biddiw ci asamaan ak ay sunna yooyu diine dañ leen laale wuñu dara dara waaye nag teewul rek mu ne biddiw yi bu ñu feqee ci biir lëndëmu guddi day mel ne sunna yu ne tay leer ci diggante ay bidaa nga xam ne kon nuróole bi am na beneen taar bu ci nekk mooy ñu waxee dafa jeeñeer ne sunna ci boppam dafa am ak leer bidaa amee ay lëndëm nga xam ne leerug sunna yi ñoo ne tàyyi ci diggante lëndëm yi biddaa yi li nga xam ne moom la biddi yi guddi gi ne tàyyee ci biir lëndëmu guddi ga ومن أبدح التشبيهات بقنا جدا جاوية موضوعنا قول المتنبي بليد يلنا رب بلال الطلال تم رب جنتيا إن لم أقف ديم تخونا بهذا اليوم وقوف شحيح كم تخو أجمعي جاه كوك سانكنا في التربة بالسوسة خاتمه jaroom ba yadaxoo dana ñaan xalaana fii ci boppam bir bi laaj ak ràpp wala fanaay ak lu jeex isaaboo ndee moom lam yaqif taxawut bil atlaali ci gent ya li yóbbu ko ngir mu fàttaliku xax daman jamono yi nga xam ne kaanu nekkoon nañu di xaa ci gent ya tuma araada bopp mu dëgg an yu sawwara mu melal laka ñeel la xay atu wuquuxi yi melaw taxawam nga fa xaal tam ne كما يقه لكي تخو شحيح الأجمعي فقد أكل نقنا خاتمه جارم في التراب تسوسة من أنا كان كان نكون يوثق به توفيقا إلى تصوير حال الجاهل جمت ملل برم أجبلم جو المتحير كأجبلم المحسون تلكم جقل المفرق كأجي سب برأسه البطن المنتقل كأجي تحو من مكان بايكو بلاس إلى مكان جمت بلاس حب تراب تأبد بدي ودهشة أهو الجاهل بحال شحيح تي برم أجنيه فقد كون يقنا في التراب تشوف خاتم الأبجار تمن بأجفار من الشر من غير اللي نكو دفع دنا من تسابت يلنا رب نجنت يوي رب سفكيني تخوفه تخوف ku jaaxle jaaxle ku gëlëma gëlëm li nga xam ne moom la ko nay di jaaxleek gëlëm bu ab jaaram ne putt ci suuf mu koy jeex na te xamul fi mu nekk maa ne muy jaaxle na muy gëlëme moom la muro leeg bu taxawee ca gent ya na nga xam ne moom lay gëlëmeeg moom lay jaaxle boo ko dee seetlu nag nuule boobu sori na lool xalaatu xel bu fekkoon ne waxu ko woon da ngay defe ne sax yooyu ñaar mu ne sudee na muróole ndax rek soree gum soree ci xel jàpp ne lu mën a am la kon nag boo déggee ñuy wax ne at tashbihu muróole dafa bokk ci balaaxa mooy muróole boo xam ne kooko yaar yam muróole daanaka xel daa jàppoon ne muróowu ñu dara dara moom nag mu fexe ba jàppale leen ci technique muróole leen ba day yéem ka nga xam ne moo koy dégg te it xelam dana ko nangu walaw aradna donte bëggoon nañu an nuurida nu ratal la ka ñeel la am te la tan ay misaal min xaada nawi ci bi façon la taala kon gudd alkalaamu wax bi nee na dana bëgg li ñuy wax leer ci yow moo tax andi nañ ci yenn misaal rek waaye suñ bëggoon a andi yu mel ne ñoom di yooyu day mujj rek wax bi gudd ci yow waaye mel na ne li la bëgg wax moom jàpp nga ko هذه لي هي من بلاغة التشبيه ما بلاغة التشبيه من حيث مبلغ طرافته جفوف دايت أك يمم وبعد مرماه أكسرك أبساني كايم وبقد ومقدار ما أك كمك لنغا خمنا فيه نكنا جمم من خيال أك جانير kon neena li mo lay wan jëmmi nuróole ci boppam rek ni nga xam ne moom lay yéemee ak ni muy demee dayo ci wàllu jeeñeer ba bakkan di ko yéem di ca jaayoo day bëgg a wax nag ni nga xam ne moom la tasbiihu di tëdde maanaam ni nga xam ne moom ngay formé wax ja ba am tasbiihu ay anami anam la te appanti nañu ay daraja ci wàllu balaaxa amma balaaxatuhoo ndaal balaaxaam nag min xaysu suuratu ci foofi xam ne melo wala alkalaamiyatu nga ko jug wax allati yoo nga xam ne yoo baxu def na ko tëral fiihaa ci moom aydan ba tey fa aqallu tashbihaati gën jaañee yu nuróole martabatan ci daraja fil balaaxati ci balaaxa maa mooy la nga xam ne bukki rek tuddeef na arkaanuhu ponkam ya jamihu haa mboole seen li anna balaaxatu tashbihi ngir naka balaaxat tashbihu mabniyat mi ngi tëgg la mabniyatun ala dihaay annal mushabbaha ci woote ne naka la ñuy nuróole xaynul mushabbahi bii mooy jëmmi la ñu nuróole ci moom wa wujudul adaati